d' abord mu ngi dépendre ko bëgg a dindi. ku nekk yaa xam li nga bëgg def sa kër. di nga jël kër tojaat sax changé bunt. mais ñoom waxoon nañu bu yàgg ne bu ñuy ñëwee dañ koy dindi. moom dama ñoom ñu ngi seen yoon. ndax dina baax ndax du baax. beneen problème la mais mën naa ci wax benn affaire par esprit de comparaison. def yow yow lenn yow kenn rek. sañ ko yow kenn rek def ko yow rek ko yow rek ñaari institution yi depuis ñu créé HCCT maa ngi wax parce que da ngay jël ñaari institution nga mission Nous ñaar une mission consultative en principe en général sur le plan du développement social de la nation passé wul mission yëpp parce donc mission ACTT boo ko tëraloon tey dindi ko tey soxlawul ñuy dara ci organisation conseil économique et social. maanaam mënuñ leen boole. ma ne buñ leen waxuma boole. dama ne buñ ko dindé sànni def ko mbalit. Mm. conseil économique social dina mën assumer. toutes les missions. Mm-hmm. mais bo dindé conseil économique social def ko mbalit dina am mission bo xam bi moom mënu ko assurer. d'accord donc bàyyi woon benn kër gi taxaw moo gën. jàpp fi ba paré dafa nek institution bo xam boko xolé 98% ni des pays qui pour ko le organique conseil économique et social et environnemental am ce qu'on appelle des institutions similaires mm-hmm. donc comme nous avons man am